TGP xam ngeen ne TGP dafay dox demoon nañu fi def TGP ba Canada demoon nañu fi ba Gambie tey nag TGP dafa dox waaye ci biir dëkk bi la dox ñu ngi fii tey ci Louga dañu gane ci Serigne Sam Mbaye Serigne Sam Mbaye nag dañu traité ak moom benn sujet bu mag ndax dañuy traité Alxuraan al Karim le message coranique maanaam Alxuraan lu ko tax a jóg fu mu jógee naka la ko nit ñi recevoir euh, moom Serigne Sam Mbaye nag kenn du ko présenté ñëpp xam nañu ko xanaa ñi xamul jëmm ji tey ñu gis ko tey Serigne Sam Mbaye nuyu naa la. ñoo ngi leen di fay sëñ Sam moom alxuraan moom moom alxuraan xare moom fu mu jógee dëgg dëgg alxuraan laaj nga lu diis lu foor lu rëy lu màgg ndax alxuraan meloon suñu borom la c'est une manifestation de Dieu kenn mënul na yàlla ci waaye eh, kenn mënul du yàlla ndax waxu yàlla ci ay meloom la bokk texte alxuraan du texte inspiré mais texte révélé la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yokku ci xaraf wàññiwu ci xaraf yokku ci maska wàññiwu ci maska lépp noonu la dikke ci moom alquran ulama yi ak aarifoon yi dañuy faral di laaj ba fu mu jóge pour ñëw ci laaxu mahfuz allahumma la tablette bien gardée alquran ñu fu ñu wax ummul kitaab ummul kitaab mooy fa xam mooy bérébu xam-xamu suñu borom bi tabaraka wa taala alquran nag bi suñu borom nammee mu wàcc wàcc la ñuy wax waaye duñu wax sosu mukk ndax suñu borom du turam yi du jëfam yi du ci yenn ci meloom wu sosu lépp naka jëkk dafa ndax suñu borom nekkul ci temps nekkul ci béréb alquran jógee umul kitab ñëw ci allahul mahfuz bi nga xam ne lépp lu suñu borom di dogal ba ba saa di taxaw ba mu bindagul adduna ba lépp mu ngi ci lawhul mahfuz muy première wàccam <coughs> mu jógee lawhul mahfuz wàcc ci asamaan su njëkk si asamaan si mu gën a jege notion asamaan temps bi laajul leeral ko waaye ay émission émission xaj na ci. ci notion asamaan waaw waaw bi ñëw nag ci asamaan su mujj si toog nag di xaar xew-xew yi nga xam ne mooy ñëw pour mu di leen atte kon ni ma la waxee ne suñu borom yi nekkul ci temps lii xew lépp muy mel nag ci moom nii mu tiime tey ëllëg ak démb lépp noonu la tiime ci moom atte yooyu muy atte te ñëwagul li mu nekkul ci temps moo tax mu mën ko bi mu ñëw ci asamaan su mujj si nag di xaar nag xew-xew bu xew rek benn aaya wàcc atte ko moo xam lu muy tere la wala lu muy digle wala xabaar bu muy xamal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala juif yi ko daan jéem a di ay question mu ay wàcc pour tontu loolu waaw alquran la mu wàccee lu mat a la ka alquran wax yàlla mënul dégg ko waxu yàlla je aadama kese mënul dégg wax yàlla mënul dégg sax waxi malaika alquran dañ naan la jibril alayhi salaam mi nga xam ne bu borom doon dañ naan mooy secrétaire am ak yonent yi moo ko indi jibril malaayka la xam nga malaaka nature lu tranchante la mënul jëflanteeg nit ñi nit ñi mënuñu jëflanteeg moom mhm. ndax seeni nature dafa opposé mhm. doomu aadama yàpp ak deret la mhm. ak ndox malaayka lu immatériel la lu ànd ak secret yu diis ak melo yu kon malaaka ak nit dañu jub jëflante directement de mënuñu jëflante directement ñoom ñooy jëf ci nit ki ñëw di bind li doomu aadama bi def ki ñëw di wàcc wàcc yërmande ki ñëw di balul jaam ñi ak ki ñëw ku ci nekk ak sa mission waaye dañu ñëwee nit ki du ko recevoir du ko gis du ko dégg du ko xam lu dul ci exception yenn nag yu ñëw xëy na bu temps bi mayeen dem recevoir message boobu kan la muy wax yàlla ju dis jooju ñu ne yonent doomu aadama la naam waaye doomu aadama bu wuuteeg doomu aadama yi la boo xam ne dafa am ay disposition yu yoo xam ne moom rek moo ko am amit baatin goo xam ne may na ko mu jóge ci melaw doomu aadama simple bi dem ci melaw xam ne day jegeeg melaw malaayika ba xam ne dana mën a jëflanteeg malaayika yi li wax ci tubaab un état second léegi malaayika mi su jubee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek melaw woowu daal di soppiku mu dikk ci beneen melaw boo xam ne day mën a gis malaaka mi dégg li muy wax mën a wax ak moom sëñ Sam alxuraan bu ko malaaka yi di wàcc moom ban ban melaw lay am ban lay am waaw mi am na melaw muy am buy wàcce ak melaw woo xam ne dana ko dikkee te wàccewul alxuraan melaw muy dikkee te nit koo xam ne saxaaba yi duñ ko xam waaye dana amee melaw remarquable yu saa dana dikk ànd ak meloo ci saxaaba yi ku ñu xam waaye duñ xam ne malaayka mi la muy jibril buy indi alquran nag te ànd ak bu diis mooy waxu yàlla jooju diis na ci ki koy yene di ko indi waaye suñ borom dëgëral na ko ba mu mën a dox mission boobu ki koy recevoir itam moom it noonu waaye nag dana feeñ ci koy recevoir ñu xam ne mu ngi recevoir lu diis gën sallallahu alayhi bu wax yu bi daataan wàcc maanaam révélation bu daan ñëw bu fekkee mu taxaw day toog bu fekkee mu toog day tëdd ndax diisaay bi léeg-léeg mu fekk ci kaw gëléem gi mais gëléem gi ko attan day sedd nit ñi di lox di kof kofi révélation bi day wàcc yonente bi sallallahu alayhi bu noppee day ñëq te ndax diisaayu li mu doon recevoir kon alquran mm. diisaayam doy na waar ndax suñu borom dafa ne bu nu wàccee woon alquran jii ci kaw doj doj bi da koy si mu fett di toj ndax diisaay ndax diisaay bi waaw ah, ci la xam ne su tegee mu ko mm. su tegee poojam ci pooju nit mm. bu xëccul poojam day dem ndax diisaay bi ndax diisaay bi à mesure que révélation bi di ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gën a miin mbir yi di gën a dolli ko dolli koom sax mat na waaye daf koy récupérer bi mu dikkee ci melow doomu aadama moom yonent bi ba mujj mu gën ko attan خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء الجبال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان